UNES di kuréel guy yëngu ci événement événementiel diirum ñeenti weer fasse wuñu xànc ak morom te dara waralu ko it lu dul feebar mbas mile loolu yi tax ñu yuuxu wàllu jëmale ko ci njiitu réew mi président Macky sàll ngir mu jàppale leen ginnaaw buñ demee ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ak lenn ci ay kilifa yu nekk ci dëkk bu sell bii di Touba daal dinañ janoo ak taskatu xabaar yi ngir fësal seen jafe-jafe yu xëccoo yi ñuy jànkonteel jamono jii di leen di nuyu ci turu INES ci turu ganna Diop président union nationale des entreprises événementielles du Sénégal niñ ko xamee keroog bi mbas mi jugee duggee ci réew mi ak tey toll ci 4 mois secteur bi ñu nekk di ci yëngu mooy événementiel bâche tente ak cérémonie mooy événement bi njëkk a taxaw ci réew mi keroog booba ak tey terewul ñu jukk def ay bâche di ko able ci centre de santé yi di jël ay gel hydroalcoolique di ko distribuer di jël jàkk yi nga xamante ne nit ñi dañ fay julli ak centre de santé di leen abal ay base pour ñu respecter euh, barrières yi di able ay masque yooyu yëpp nag ñu ngi koy def effort yooyu ñuy def yëpp nag tréwul ñuy dund ay coono ak i jafe-jafe yu bari ay emploi yu ñu war a fay ay magasin yoo xam ne dañ koo loué ak ay dépôt yoo xam ne dañ koo def war koo loué war koy fay responsabilité yëpp daa teg suñu kaw ñun nag dañoo teg ci wàllu kilifteef

suñu perte à gagnant mat na 2 milliards cent millions loolu nag lañ lay tàllal loxo nga jàpp ñu ndax kenn gënuñoo yey ci ñi ñuy jàppale kenn gënu gënuñoo yey ci ñi ñuy dimbali kenn gënuñoo yey ci ñi nga xam ñu ngi leen di taxawu ndax ay sénégalais lañ di gone di créer emploi te ay 2000 wala 3000 personnes emploi ñi ngi en chômage pour le moment te boo xewee suñu société mi ngi en en nekkul en sécurité fi ne te yàlla rek moo xam nan lay def fi nekk nii. ñi ngi tàllal loxo nguuru Sénégal pour mu jàppale ñu. xam ni ay ay euh, chef d'entreprise ñoo nekk fii euh, di yëngu ci événementiel bëgg ku leen taxaw ndax ñi ñuy jàppale ñëpp kenn gënuñu cee yey. maam dem nañ ci xalifa bi tey dem ziyaare ji ko présenté ko suñu suñuy suñuy coono ak suñuy cellule bii nga xam moom la ñu nekk ngir mu ñaanal ñu. suñu doléance nag mi ngi noonu ñi ngi koy ñi ngi tàll loxo président ni mu koy dimbalee ñëpp secteur yëpp secteur événementiel sonn nañ.